ndax tey jii loo bëgg a bëgg a def liggéey te amoo système transport bu baax du dem. lii nag mooy jafe-jafe bi nga xamante ni war nañ cee taxaw tembe ndax kat dem bekk dikk bi war nañ ko saytuwaat ci biir réew bu Sénégal tax sëriñ Mboup daal di yëkkati kàddum jëm ci li ni mel ci li nga xamante ne moom la daal di bëral lu jëm ci dem bekk dikk bi ci biir réew bu Sénégal doore ko nag ci suuf si. lii moo ci taxawaayam bés bu ñu ko falee. fexe ba transporteurs yi am ay oto yu bees état bi li bi investir ci transport bi muy Dakar dem dikk wala muy BRT wala muy TER bu ko jëloon tey def ko partenariat public privé avec des entreprises locaux Sénégal gépp tey ci milliards yi ñu investir mën nañ ko régler interconnecté la ko digitaliser ko ba nga xam ne foo bëgg a dem dem ko. te loolu tamit day tax mu wàññi circulation oto yi. ñaareel ba tamit mooy raay bi raay bi tamit dafa am solo ci transport marchandise ak transport camion. boo xoolee transport conteneur parce que dana la coûter lu mat quatre cent mille bu doon dañ ko jaal ci raay bi même pas du coûter cent mille francs. Sénégal am ay gox yu bëri yoo xamante ni géej gi dafay daal di jaar loole nag. tax mu daal di xalaat ni jot na tembe ñu xoolaat li ni mel teg ci ay jéego. ñun dañoo am 700 kilomètres de côte te géej gi moom defoo ci tali defoo ci foo rouge defoo ci dara ça te coûte rien c'est juste pour defar ay bateau def système boo xam ne nii dana am navigabilité bu baax. Serigne Mboup wax ci jaww gi dem ba dikk bi muy xam la ne Sénégal aéroport yi daana fexe ba lépp dox. transport aérien dafa dem foo xam ne dafa gën a moins cher parce que tey jii bu fekkoon am nga ay avion yoo xam ne nii chaque capitale régional benn avion posé fa. da ngay dem ba nga xam ne nii transport boobu moo gën a moins cher ndax li ngay taale sa oto di dem fii ba Saint-Louis di fay ay cent mille francs ci sa oto nga am transport boo xam ne nii du mat cinquante mille man je m'engage que dès que ma nekk ci pouvoir bi ci lu matul ñaari at aéroport yi ci Sénégal yëpp danañ dox ay vol di fa am nga xam ne nii foo bëgg dem Sénégal mën nga dem aller retour moyen de cinquante mille francs ndax. candidat Serigne Mboup Mile di njiitalu mouvement ànd nawle ànd liggéey mu ngay wéyal programme am ci lu jëm ci campagne fii ci ndakaaru li nga xamante moom mooy ay visite de proximité lay def dem na fa nga xamante ne moom mooy marché bu Rufisque jaaree ko ca marché jàmm gën si Kab Mbaaw Serigne Mboup sànni na ci sax ay pic ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay candidat yeneen nekk ci jongante njiitu réew yi. dañuy dem fi liggéeykat yi de dem ànd ak ñoom waxtaan ak ñoom te gis nañ ne sax foofu mooy fi nga xam ne nii politiciens yi ñëwewuñ ko ndax marché moom li waa ji di wax ne ko dee ca marché ba yaa tàgge sa bopp mais ngeen foofu mooy suñu fièvre et foofu lañ yaakaar ne fa lañ gën a mën a liggéeye ndax fa la population bi active di daje. yéen daanaka ni marché yi ngeen gën a jox bopp ndax marché yi ñooy Sénégal ñun nag suñu feebar dafa yàgg mm-hmm. la ba léegi yii marché dañuy tàkk yii di seen mais suñu marché dafa nekk ci di daanu sax ci kaw nit ñi te mënuñ ci dara. moom wax dëgg yàlla ñun dey suñu doon yàlla mooy nekk président. ko defee réew mi am jàmm ndax doomi daara yi fi mu ne ni ñoo war a yor réew mi ñi ci des dañuy politique rek di dem waaye moom liggéeykat la.